réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. asalaamaaleykum ami cher internaute yéen ñi safoo di seetaan les Patriotes TV dal leen jàmm ci xibaar Macky Sall nag daal dina yàqu yàqeet gannaaw li nga xamante ni moom moo di wal Walfadjri buñ leen ñu tëjee un mois. ferme loolu tax na nag leen moo di wal Walfadjri ñu bari ñi nga xam ne ñoo ngi fa nekk di liggéey war a dem fële sa chômage. mais nag lu ñuy wax rek yàlla du tëj buntu du wàccee tëj palante ba pare nar a wàccee lii dox gannaaw loolu bonne nouvelle daal dina dal li nga xam ne moo di groupe Walfadjri Serigne Mountakha Mbacké moom moo daal di leen jox cinq million Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne le père de la nation moo nga xam ne saa bu dëkk bi soxlaa rek dañ koy gis an participation ci corona bi lépp loo xam ne dëkk bi su amee ay jafe-jafe day ñëw andi si sa participation bu am solo gannaaw loolee waa Walf nag dem bu ñu récolté plus de trente millions nag nguur gi dafa daal di maire ba tëj li nga xamante ni moom moo di seen compte weer bi gannaaw loolu nag euh, nañ ko wax soxor dëgg la mais tamit lu ñu di wax rek gannaaw loolee tey ji moom moo di Walf mun nañoo continuer li nga xamante ne seeni activité donte li nga xam ne moom moo di seen télé bi nag du ko duñ ko daal di kii parce que dañoo coupé signal bi mais ñi nga xam ne ñoo mun nañoo fayee ko parce que xaalis bi